donc tey ñu amoon mbégte ak kontante bokk ci bis yi ñu ëpp mbégte ak kontante li ko waral mooy dañu gis leader boo xam ne taxawaayam jubam dëggoom Sénégal gu ko ñor ak gu wéram kooku mi ngi tudd Ousmane Sonko ñu fas yéene ñëw ànd ak moom jàppale ko ci élection yi pour liggéey ak moom parce que gis nañ taxawaayam ndax euh, depuis daaw daaw jéeg at yi romb yëpp nit la koo xam ne kuy sauver Sénégal la parce que foo ko fekk mi ngi saytu xaalisu réew fi muy dugg te jaarul yoon ak fi muy dugg tamit nit ñi di ko di ko lekk ku mel ki fi nekkoon nga xam man ak moom ñoo àndoon doon liggéey muy président Macky loolu nag am na lum am na lum def lu bari parce que xay na bàyyi nañ ko xel ci loolu ba peut-être am na loo xam ne peut-être nañ ko lëndëmal ci état bi donc ñu ngi koy leeral te loolu kenn waralu ko Ousmane Sonko moo ko servir am réewam kooku moom pour mu leer parce que bu ñu yaakaar ne bu ñu yaakaar ne saafarawu parce que nit ki par exemple bu doon jël téléphone bii di ko jël di yóbbu soo toogee ne téléphone bi su ma ko tegee sama nekk am na koy jël kooku day bàyyi. xam ne lii euh, acte la boo xamante ni ku am courage dëgg-dëgg moo koy def xam nañ ko ci réew yu mel ne ay France ay Amérique mais farul luñ di ko gis ci réew yu mel ne Sénégal di jógee parti pouvoir di ñëw parti opposant loolu moom dëgg-dëgg am nañ ci mbégte bu baax a baax a baax ak contentement waaw loolu rek moo ci suñu yëgeeb. gis xam ne mais dem nañ ci APR loolu moom yëgaguma ko yaa ma ko tey maa ngi koy door a dégg fii euh, lii lii tàmbalima la rek waaw tàmbalima la tàmbalima boo xamante ni amul fin balaa semaine bi di nga gisaat yeneen kilifa yoo xamante ni ñoo ñi gën a mag ci APR jóge APR ñëw Pastef ndax nit ñi changement moo leen ñor te changement boobu wala ku dina am ku ci mel ne sëñ Moustapha Seck day ubbi porte yi rek mais yeneen ak yeneen ñoo ngi ñëwaat bu dee ay section lañ ko def section 1 ba 26 1 ba 26 yëpp dina ñëw Pastef incha allah ah, waaw candidature ah, bëgg ah, loolu moom mu ñàkk am mooy élection du am Sénégal ñun koy waxatuñu waxee ay candidature yooyu waxi jël réew mi lañu wax 24 février avant 18 heures Macky Sall ñu